allez oustaz kon ñu tàmbali waxtaan bi ak euh, euh, gan gu màgg gi nga xamante ni moo ñu defal honneur mhm. ñëw seet si ñu jërëjëf alaaj Pape euh, am nañu mbégte mbokk yi tey jii nag ñu ngi dalal Serigne Mouhamed Samb soldaaru Bamba yaakaar naa réew mi bitim réew ñëpp xam nañu ko ndax weer yële ci ginnaaw jaaroon na fii ci télévision Futur Média ci émission bu mag boobu la di siira nga xam ni Seydina Mouhamed la ñoo waxtaane waaye mu indil ñu xeetu salatu ala nabi yoo xam ni yaakaar naa téléspectateurs yi àndoon ak ñun ñëpp bég nañ ci sëriñ bi nag lañu ñu dalalaat tey ngir baaxe askan bi euh, bu leen fàtte ni télévision Futurs Médias du ñu deñ di xool lii nekk njëriñu askan bi ñu leen koy indil looloo waral tey jii euh, ñu indil leen sëriñ Mouhamed Samb di ko nuyu di ko ziar sëriñ bi am nañu mbégte ci wuyu si gii nga wuyu si télévision Futurs média mm-hmm. ñu lay nuyu bu baax a baax di la ndokkeel bismillah aouzu billahi mina sheytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وكل من لم يحبني من الرجال ونشائي وإني أهزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله واحد الأحد الأزلي الأبدي فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد والصلاه والسلام على باب الهدى نائل المدى مولي الندى ليس الهدى ماهر الرضا باب الهرى وكرمي صلى الله عليه وسلم استاذ بابان نيغلي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته di nuyu mbollem ñi nga xamanteni ni bokku nañu di nuyu soxna yu tedd yi di jël suñu nuyo bu spécial di ko beral ki nga xamanteni ni moy suñu buntu ci Serigne Touba moy Cheikh Muntaha bashir alaaji papan mhm. Cheikh Muntaha Muntaha yal na fi yag te wér ya ndax bu fi yàggee njariñu julit yépp la mhm. ndax dem nañ ba nga xamanteni ni fi ne ku jaxlé sa xel ci mom lay dem mhm. bu waxé xel yépp dal mom serigne muntaha wallahi ci lañuy jaar yit nuyu mbollem khalif généraux yi kenn ku ci ne war ma ji ji nga yellol ci sag daraja ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jamm di ñaan suñu borom defal leen wër ba yenn bi ñu yenn ñom ñep kenn ku ci ne yenn bi nga yenn suñu borom oyofal ko ba mu oyof toll ci barke Cheikhul Khadim di nuyu alaaji pap Cheikh Diallo ñu ngi lay nuyu di am mbégte lool dalal ak yéen ndax yow moom wax dëgg yàlla référence nga ci li ngay def waaw te loolu lu am solo la nit ku nekk nag sañ na booy def dara mhm. nga fexe ba feeñ ci fexe ba ñu xam la ci mhm. waaye xam la ci lu baax it am na solo mhm. loolu it mooy nuyoo bi nga xamante ne nii ci la ñuy di ci nuyu mbooleem koo xamante ne nii yaa ngi seetaan di ñu topp di ñu bége ci ci ci fépp rek ci àdduna bi mhm. maanaam képp koo xamante ni xam naa ko wala mu xam ku ma xam rek maa ngi koy nuyu mhm. ci nuyu boobu nag ci laay e, ndokkeele ndax guddi gii ñu weesu mhm. moo nekkoon màggalu mu nekk Serigne Souhaïbou nag moom xam nañ ko ñu nuyu na njabootam waaw ndax dafa dafa dafa def loo xam ni ku ku xool gis ko ko moom Serigne Souhaïbou di ci nuyu bi bu baax bi nga xamante ne ni mooy Serigne Cheikh Seye di ko ñaanal yàlla guddal fanam di nuyu nag soxna Bali Muntaxa baax lool yaayu taalibe yi waaw yaayu taalibe yi nag wax na lépp wallaay uh-huh. di nuyu mboolem adduna bi di la xamal ni lii moom jafe woon uh-huh. waaye yow danga ma maa woo ci li ma bëgg uh-huh. woo ma ci li ma bëgg ndax man dama doon nit koo xamante ne nii du xaalis moo may bégal du kër gu rafet moo may bégal du oto yu oto yu rafet moo may bégal li may bégal mooy waxtaane sëñ Touba. ak lii nga xamante ni yàlla dénk na ma ko ma koy bokk ak jaam ñi. Mhm. ndax li may wax ni xam-xam boo ko joxul euh, nit ñi. Mhm. suuf si rek nga koy jox. te alaaji pap mhm. léeg damay gis loo xamante ne nii day doon lu ma lu ma lu ma jaaxal ndax léeg dangay gis góor yàlla goo xam ni day boof fa mu ne. yor yor xam-xam bu wér a wér wér. waaye du am ku ko jël du am ku ko jël ba génn àdduna. bu ko defee njabootam dañuy ñëw di tiim téere yi duñ ci xam dara nañuy mujje mooy dem yëkkati ko jox ko keneen koo ko jariñoo ko waaw loolu bari na mhm. ba tax na euh, xam-xam la mhm. na ko nit ñi jariñoo na ko nit ñi jariñoo te lu am solo la kon daal tey jii ñu ni ma déggee mooy mhm. ku ne na nga yor sa bigg sa fooy boo mënee enregistré nga def ko ni di nga sànni doomu aadama yi njëriñ kon sëñ Mouhamed xam naa dañuy tëb rek dugg ci waxtaan parce que xam-xam bi muy joxee man dama gis ay nit yu koy rang ay nit yuy fanaani mhm. ay nit yuy jël ay fan mhm. euh, pour mu recevoir leen pour waxtaan ak moom mhm. pour mu joxe ay tegtal donc defe naa tey lii mu nar baaxee euh, sénégalais yi euh, ku ci profité wul du baax il faut que na ci ñëpp profité xam nga laaj pap li olof moo mooy wax ne lu dul dëgg du yàgg déedéet te nit ñi boo taxawee pour nax leen mën nga am ay mën ngaa am ñoo nax Sénégal Sénégal waaye ña ngay nax daañu mujj yeewu Sénégalais léegi dafatul tele bu fay sax mën na laa wax li daw ci biir jërëjëf ak kay na dem tele bu fay mun na la sénégalais mun na la wax télé bu fay lii daw ci biir lii daw ci mi ngi noonu mhm. Mhm. kon nit ñi dafatu fekk télé ba fay na léegi nit ñi dañoo yeew moo tax boo leen di wax wax leen yàlla mhm. wax leen yonent bi wax leen waxi mag ñu baax ñi te te bàyyi euh, dox ci xelu nit ñi alaaj Pape dox ci xelu nit ñi ngir wutee ca dara ndax la nga cay wutee mën naa bañ a lew waaye boo indee comme ni ko sëñ Mouhamed bu waxee léegi soldaaru Bamba ah li koy bégal xam na ne am na góoru yàlla yoo xam ne am na lu newoon seen dënn waaye dem nanu lenn ci seen njaboot am na ñu xam ne am na ñoo mën nañoo ñëw tiim tiim bagage ya lu ñu xam lu muy la waaye moom nag ci mbaaxam bis toog nañu waxtaan mu ne ko laa biir nga ci génne eh, secret yi mu ne ma pap su ma sañoon li ne ci sama dënn lépp mooy wesaare ko àdduna bi jariñoo ko loolu nag mbaax la mais mm-hmm. sëriñ bi tey eh, fi mu tàmbalee mm-hmm. mooy fatiha daal mm-hmm. alaaj pap njëriñal fatiha avant nuy ñëw ci salatu ala nabi Euh, ak ak yeneen xam naa laaj pabit ak soxna yi mën na ñoom lu ñu laaj mais euh, fatihatul kitab ak basmala baatu basmala mooy am na ñoo xamuñu basmala mooy bismillahi rahmani rahimi kese mooy basmala waaw loolu daal njëriñam euh, bëggoon nañu nga décortiquer lu nu ko indi defal ñu ci waxtaan sëriñ Mouhamed Samb alaaji Pape da dangaa tudd lu lu am solo muy fatihatul kitab Mm-hmm. faatixatul kitaab nag mooy bunt mooy lépp waaye boo xoolee ni ko yàlla nëbbe yàlla daa nëbb faatixa xam nga lu tax mu nëbb ko da koo siiwal ba ñëpp xam ko waaw ndax bari waan na loo xamante ni bu siiwee kenn dootu ko jox importance bi mu war a am importance mm-hmm. waaye alxuraan ci boppam ak téeméeri téere ak ñeent yi yàlla yi yàlla bind boo jëlee seeni mbóot yëpp mi ngi ci faatixatul kitaab waaw 104 téere la yàlla defal boo jëlee 104 téere yi seeni njariñ mu ngi ci biir faatixatul kitab seeni njariñ 104 téere yi mu ngi ci biir faatixa ci biir al ngi ci biir faatixa waaw léegi nag faatixa bari na am na fanweeri tur yoo xam benn bokku ci sa morom moom faatixa moom faatixa comme yow tey niñ lay wooyee allaaji mhm. wala ñu wooyee la oustaz ñii naan Pape mhm. maanaam faatixa am na fanweeri tur te benn bokku ci ak sa morom ci mhm. ci turu faatixa yooyu bi njëkk mooy faatixatu bi ci topp faatixatul kitab dinañ ko woowee ummul kitaab dinañ ko wooyee alquranul azim dinañ ko wooyee sab'ul masani dinañ ko woowe alwaafiyatu dinañ ko wooyee alwaaqiyatu dinañ ko woowee alkënzu dinañ ko woote alkaafiyatu dinañ ko woowee al asaasa dinañ ko woowee an nuuru dinañ ko woowee suuratul xamdi dinañ ko woowee suuratul shukri dinañ ko woowee suuratul xamdi ula dinañ ko woowee suuratul hamdil xasri dinañ ko woowee ar ruqiya dinañ ko woowee as shifaawu dinañ ko woowee as shaafiya dinañ ko woowee suuratul salaat moom moom fatiha moom fatiha yooyu yëpp ci fatiha la bokk parce que yàlla yàlla dégg naa bu lay jox da lay comme bu lay jox enveloppe bu bu lay nëbb enveloppe da lay jox enveloppe ba nga xam ni doo xalaat ni lii la la war a seetloo léegi nag siiwuk fatiha siiwam moom la ko yàlla nëbbe léegi nag moo tax fi ne li ci nekk ci ay secret maanaam fii ba maanaam ba ñetti at ci kanam ci man li ma ci xam li ma yàlla sédde ma xam ko ci fii ba ñetti at ci kanam bis bu ne mën naa cee wax loo xamante ne nii du jeex moom faatixatul ci faatixa rek moom faatixatul ci léegi nag comme waxtu wi dañoo tànc waaw aaya bi ci njëkk mooy alhamdulilahi rabbil alamin alaaji pap alhamdulilahi rabbil alamin boo ko adadee da lay jox 582 582 582 boo jëlee 582 nga diviser ko par 2. Mhm. day jàpp 291. 291 mhm. mooy nafaxatul yow njëriñal bis bi njëriñal bis bi. Hmm. léegi nag ki nga xamante ne ni yàlla daa dogal. àdduna njatt ko. koo xam ay biram dafa dëgër. dafa dëgër mënta am xaalis mënta am bayre mënta am wërsëg maanaam mbiram dëgër na jàpp huwallaahu ahad allahu samad. huwallaahu ahad. yéen a ngi bind huwa allahu ahad allahu samad allahu samad loolu boo ko calculer mooy 291 waaw boo ko multiplier par 2 nag mooy 280 mooy 582 alaaji Pape may maye loo koy wird wala li ngay li ngay wird moom laay moom laay ñëw nafaxatul yow mi mooy huwa allahu ahad allahu samad huwa allahu ahad allahu samad moom ngay moom ngay def 291 291 léegi nag ki nga xamante ni daa bëgg yàlla moom dimbali ko maanaam addunaam baax allaaxiraam baax aajo ju mu am bu ko jullee julli gii may joxe bi may waaj a joxe nii ci alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom day faj loolu moom mhm. kon dama ne huwallaahu ahad allahu samad mhm. léegi huwa moo njëkk mhm. da ngay njëkk julli ñaari rakk rakk bu ne nga tari ci fatiha ak onze suratul ixlaas onze lixlaas waaw mu bu njëkk bu njëkk bi bu ñaaree bi tamit fatiha ak onze après nga demaat ci deuxième rakka bi. Mhm. Fatiha ngay tari ak 66 sóoratul Ixlaas. 66 Ixlaas. 66 Ixlaas. nga demaat ci deuxième rakka bi tariwaat Fatiha 66 Ixlaas nga sëlmal. Mhm. kon ñaar dem na. Mhm. mu des ñett léegi huwa dem na allahu dem na ahad. léegi troisième rakka bi da ngay def Fatiha 13 Ixlaas de beneen bi ci topp nga def Fatiha 13 Ixlaas nga sëlmal. léegi am nga ñetti sëlmal. am nga ñetti sëlmal ñeenteelu sëlmal bi. faatixa ngay def 66 lixlaas defaat faatixa 66 lixlaas sëlmal mu des mu des benn mhm. léegi boobu nag da ngay def faatixa 135 lixlaas maanaam rakka bu ci nekk 135 maanaam ci taxawaay bi ngay def Fatiha. waaw mën nga yor sa kurus sax. waaw def 135 lixlaas def 135 lixlaas. waaw deuxième bi tamit nga defaat 135 lixlaas. boo paree loolu lépp boo ko dajalee mooy nekk alhamdulillahi rabbil alamin mooy 582. léegi boo sëlmalee ci dernier rakka bi dangay toog nga jël sa kurus nga def alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ba mu mat 582. 582. waaw alhamdulilahi rabil alamin waaw léegi nag boo noppee nag nga nga jàng juróom-ñaari salaatul fatiha nga ñaan mboolem loo bëgg. Mm-hmm. aajo ji lu mu mën a doon sunu borom dana ko fajal. Mm-hmm. Mm-hmm. aajo ji lu mën a doon rek. sunu borom dana la ko fajal. boobu mooy naafila bu njëkk bi. beneen naafila bi ci topp. mooy faatiha temir yon la waye ni lañ koy jànge da ngay def 21 ans bo boo jullee suba waye bo ñëwé ci arrahmaani rahim comme bo jangé alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmiddin diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin xam nga loolu mooy fatiha bi mooy fatiha léegi nag nii ngay def da ngay def alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim bo nga taxaw mboolem lo bëgg ñaan ya xam ci alof nga koy ñaan wala ci bambara wala ci séeréer nga ñaan ko ci arrahman rahim bi après nga continuer arrahman rahim Malik Yomidin, iyyaka iyaaka nahbudu wa iyyaka nasta'in da ngay taxaw ñaanata lo bëgg nga ñaan ko leg nga ni ihdina siratal mustaqim siratal lazina anhamta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dalil mhm. xam nga muy ben mhm. nga continuer ko nonu nga koy continuer ba 21 yi mat ci suba si allahu akbar bo jullee tisbar waw nga def ko 22 nga julli takusan, nga def ko 23 nga julli timis nga def ko 24 boo jullee gee nga def ko diis loolu yëpp boo ko boolee mooy téeméeri faatiha hmm. léegi nga topp ko ba mu mat juróom-ñaari fan incha allahu rabbi sunu borom day faj sa aajo ji ci ci maanaam ci zahir faj ko ci batin maanaam maanaam rakka rakka boo taxaw da ngay def faatiha waaw ba ci alhamdulilah rabbi euh, boo ne bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim ngay arrahmani rahim ngay taxaw ñaan sa soxla soxla soxla si sax bu la neexee nga ne yàlla may ma oto ma kër may ma nangam may ma nangam loo ko ñaan ci ci diggante boobu arrahmaani rahim ak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa ngay ñaane fa ngay ñaane léegi nag boo ko defee ba mu ba mu mat noonu ma ko waxee sunu borom dana faj sa aajo zahir faj ko ci baatin mais la bala ñu dugg ci bas basmala am na beneen beneen beneen beneen beneen ñaari ràkk yoo xam ni damaa bëgg ku ne at mu ne donte da koy def benn yoon ci sa dund mhm. dinga dem ba sa wërsëg dootoo xam nu mu toll ah waaw Pape xaw ma naan yéen a ngi déggam déedéet dégg nga li wax maanaam ñaari ràkk yi ñaari ràkka koy mooy benn bu ci nekk. maanaam amul amul ay subhanallah ak ay taayaak yooyu. waaw comme ni ngay jullee salaatul tasbih mhm. noonu nga koy jullee mais fatiha ngay tari. boo ne Allahu akbar da ngay tari fatiha ñetti yoon. Mhm. Mhm. boo rukkooxee nga tari fatiha ñetti yoon. nga jóg taxaw tari fatiha ñetti yoon. nga sujjóot tari fatiha ñetti yoon. toog tari fatiha ñetti yoon. sujjóotaat tari fatiha ñetti yoon. jóg taxaw tari faatixa ñetti yoon noonu nga koy toppee maanaam geste boo def rek ñetti faatixa nga ciy nga ciy tari allahu heure boo toogee di taayee it doo wax ta doo wax doo wax atahiyatullahi may faatixa ngay tari ñetti yoon après nga sëlmal boo sëlmalee nga def maanaam ci taayee bi faatixa ngay faatixa ngay tari ñetti yoon waaw boo sëlmalee nga def faatixa 40 fois ak juróom-ñaari salaatul faatix yi loo bëgg it moom sunu borom da koy faj ci saasi moom faatixa mhm. fan yële don na joxe jinni fatiha ndax jinni fatiha li tax ma joxe ko man mako xam ndax kenn ku ci nek boy wax ni nangam day jariñ xolal ndax yow mi koy wax jariñ na la wala jariñu dama ne la kep ko xamanteni yàlla dogal na nga saxal jinni salaatul nga nga saxal jinni fatihatul kitab bis bu jot sunu borom dina la dimbali do lepp do ñaan do do do do trian do def dara te li nga bëgg yëpp di nga ko am mom jinni fatiha manam 1000 fatiha bis bu jot nga koy def bis bu jot waaw léegi it faatixa moo tax ma ni la géej la mhm. maanaam liñ ci xam yëpp buñ ko doon wax du jeex waaye mënoo wax faatixa te waxoo ma la mooy bismillahi rahmaani rahim waaw alaaji pap mhm. maanaam nee naa la liy yóbbu nit ajjana moo gën a yomb liy yóbbu nit sawara mhm. liy yóbbu nit ajjana moo gën a yomb liy yóbbu nit sawara saa su nit ki waxee bismillahi rahmaani rahim mboolem benn araf bu ci ne sunu borom dina ko ci dindil ñetti junni ñaawteef. Mhm. bindal ko ñetti junni yiw. allahu akbar. moom bismillahi rahmaani rahim. bismillahi rahmaani rahim boo ko xoolee fukki araf la ak juróom-ñeent. Mhm. mooy 19. léegi ki nga xamante ne nii heure bu jullee mu toog def 19 bismillahi rahmaani rahim maanaam bu jullee ba pare ba def baaxiyaat saalihaat. Mhm. def bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ba mu mat 19. zabbaani yoon yi nga xamante ni ñooy garde biir sawara du leen teg bët. allahu akbar maanaam sax saa yoo sëlmalee. waaw def 19 bismillahi rahmaani rahim. waaw mhm. ak nit ki nga xamante ne nii tamit man na ko muy def bis bu jot 787 bismillahi rahmaani rahim. dana defar addunaam day defar allaaxiraam ba allaaxiraam jag mu defar addunaam. 700 787 mooy safasul ci bismillahi rahmaani rahim. Mhm. wala mu koy def 786. ñu wax la nga. Eh, nee di aller doucement <laughs> parce que ñu ngi bind <laughs> nee nañu pour nga pour nga def bon euh, mun ngeen dem ci replay bi après émission bi alors <laughs> voilà léegi bismillahir rahmanir rahim mhm. mhm. mané 787 bismillahir rahmanir rahim képp ko xam yang koy wér bis bu jot day jagal sa àllaaxira jagal sa aduna allahu akbar mok 786 batay ji ki nga xamante tamit da xey dépense jafé ko mu sonn balay am day jafé lolo bari ci réew mi nag bi su xeyé waw bu jant bi jog rek na def ñetti téeméeri bismillahi rahim kon koku warul nelaw ba ba midi waw dedet nelaw ba beut set faaw mu yaw teel a jóg nelaw ba beut set waw du maye ak set lu maye ak set mag waru ko def allahu akbar señ bu mag bi mësna rombu ak kër mhm. nit ñi di joyo bobu waxtu julli mo jot mhm. fajar gi bi mu demee julli ba ñëw laaj leen lu ñu doon jooy ñu ne ko dafa am ko faatu mhm. mun leen loolu jarul jooy ki jara jooy mooy ki nelaw ba fajar te jugul julli koo kookoo jara jooy allahu akbar waaye ki nga xamante ne xëy na jant bi di waaj a jóg bi muy jóg noonu mu def ñetti téeméeri bismillahi rahmaani rahim mhm. ak cent salaatu ala nabi mhm. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sunu borom dana ko jox dépense boo xamante ne nii day lew léegi nag adduna bii ñu ne ku yabu góorgóorlu ci sa bopp ndax fi ne dañoo toll jamono joo xamante ni bu ñu demee ci armeel yi kenn ku ci ne yaa ngi sa téléphone néew bi sax bu ñu koy dugal ci biir bàmmeel bi amul maanaam ñi koy ñi koy ñaanal fan fukki lixlaas ak benn bi ñuy def maanaam dañ koy parax parax duñ ko jàng ki nga xamante ni nag mi ngi dund te deewagul alaaji pab kooku nag jéem a fexe ci dundam donte benn benn cinq heures de temps lay toog wala trois heures de temps def bismillahirrahmanirrahim rahmaani rahim douze mu wor ko ni bu ko xasse ba def mom bu dewe day dem aljana mu defal ko bopam manam mu defal ko bopam yene ko fidaw na fidaawu boppam douze mille bismillahi rahmaani rahim ñaata yon ben yon sa dund ben yon ci sa dund ko ko def bo de do dem do dem safara gaay lu de xam ngeen am ngeen jet bi de 12000 12000 12000 mille non la mané fajj aajo 12000 mille bismillahi rahim waaw manam non la mané fajj aajo jamono yele joxe won na ci ben sangat bu graw bo xamanteni ni kep ko xam bind nga ko fukki jooni ak ñaar mhm. nga dugal ko ci siwo mm-hmm. def ci ndox gas ba mu xóot suul ko mm-hmm. ba mu mat fukki fan ak ñaar mm-hmm. nga sulli ko sangoo ko heure boo sangoo nga fexe ba wér di ko fukki fan ak euh, fukki junne ñaar bu fekkee mënoo ko wér di yow fukki junne ñaar nga wut ku la ko wérdal fukki bi mu lay jox moom dañuy dem ba jàpp ni da ngay luxus wala dara allahu akbar moom ci douze mille rahim douze mille rahim day dindi liggéey douze mille rahim day tax yàlla jéggal la say bàkkaar am na ci beneen boo xamante ne nii mooy douze mille cinq cent maanaam da koy suul siiw bi fukki ñaar fan boo ko du boo ko suulee ba mu mat fukki fan ak ñaar nga sulli ko ba mu ba nga sangoo ko fukki fan ak ñaar waaye heure boo sangoo bu la neexee nga jël sa xaalis nga xool ku la mën a wérdal nga fay ko mu wérdal la ko fukki fan maanaam fukki junni ñaar dama koy def bu matee mhm. maanaam sunu borom dana la dimbali ci yooyu moom ci bismillahi rahmaani rahim uh-huh. bismillahi rahmaani rahim nag mhm. am na ci ay ay ay yooni yoon yoo xamante ni nii lu am solo la. fi ne boo te ni mu gàttee noonu tudd ko yomb noonu njëriñ li kenn xamul mu toll. déggoo ma ni la benn araf bu ne ñetti junniy ñaawteef bindal la ci ñetti junniy yiw boo xoolee ñetti junni yooyu boo ko multiplier par 19 day doon 47000 ci ay ñaawteef yàlla dala koy dindil. mu wér del la. mën naa nekk kay. Ah. mën naa nekk. ndax ni ngay joxe nit mu dila jangal alquran bu faato manam li seigne touba wax ni isduhaau mhm. yanfahu maytan fil khubur mhm. wa yanfahu fahul xayya wa yujibul ujur mhm. ñaan day jariñ ki ne ci bir bàmmeel waye day jariñ ki nga xamanteni ni moy moy moy moo mooy ngi dund waaw lolo tax nak euh, bismillahi rahmaani rahim buñ ko topone fi ba suba mom duñ fi joge ci basmala legi mën nañ dugg ci salatu ala nabi salatu ala nabi ndax njëkkee nañ ci borom bi subhanahu wa taala fatiha bisimilah rahmaani rahiim yi mhm. loolu génnul borom bi yàlla kese la mhm. wax nga ñu njëriñ yi lenn xam naa mosoon mhm. nga ñu tuuti rek lenn ci njëriñ yi mais bëgg naa nu xam doole yonent bi alayhi salaatu wasalaam darajey sayyidina Muhammad mais darajey salaatu ala nabi euh, doo ko jàng nii rek euh, julli ci yonent bi rek ndeke julli gi am na yeneen njëriñ yu mu mën a jural doomu aadama waaw dañoo toll nag ci jamono joo xam ne rëcc-rëcc yi daa bari waaw maanaam da ngay def bàkkaar sax te doo xam ne def nga bàkkaar bari na bari na léegi léeg nga def bàkkaar julli ba julli gi jeex am ci ay tuyaaba woor ba koor gi jeex nga am ci ay tuyaaba mhm. natt asaka ba asaka yi mat yëpp ñu defal la ay tuyaaba yoo xam ne dañ la koy jalal mhm. léegi nag rëcc rëcc yooyu nga amel nit àq suñu borom di jël ci yiw yooyu di ko joxe ba mu jeex ba nga xamante nit ki dootul dese dara mhm. waaye mennum salaatu ala nabi nga xam ne yàlla dafa farag rasulillahi sallallahu alayhi wa nit ki di ko def nit ki di ko def mm-hmm. lu ñu mën a jël ci sa yiw faye ko ay bor salaatu yi moom kenn du ko jël maanaam maanaam salaatu yi nga def yi nga def maanaam tey jii bu ma bu ma la yoree loon mille francs waaw ah, ah bis amul mille francs léegi ñu jël ci sama ñu jël ci say yiw mm-hmm. sama yiw jox la jël ci say ñaawteef jox ma mm-hmm. léegi ma dem ba mu wóor ma ni mënatumaa dugg àjjana te fekkoon ni yoroon naa ay tuyaabay salaatu ala nabi mhm. tuyaabay salaatu ala nabi yooyu ma yoroon laa la wax mhm. non du du kenn du ko jël di la ko jox mhm. salaatu ala nabi nag mooy loo xamante ni nee naa la nit ki mënu koo def mukk mukk ci addunaam ñu di ko yërëm Sëñ Tuubaa wax na ci masaalikul jinaan ni njariñul salaatu ala nabi boo ko jëloon muy ci àdduna ak alaaxira di ko wax nee na du tax nga jeexal njariñ yi alaaji pap salatu ala nabi kep ko xamanteni ni dom jef jafé na la hmm nga xamanteni mo xam goor gi mo febar mo xam jigen gi mo febar nay def salatu ala nabi ba pare waye tiflit bobu muy nek ci gémmiñam mhm. jamono ji mi def salatu ala nabi bi nakoy wan na euh, tiflit bi mu koy wan wa na koy wan ndax ndax nu ma ci waxin bi ñu ma rek mhm. mais euh, dañ koy wax am sama ben kóllëre bo xamne dañ ñuko ko mhm. li tax mënuloo am dom moy sa ndox mo oyof mo oyof waaw léegi moo tax mënuloo am doom waaw léegi nag nay def salaatu ala bii bi bu fekkee ni ndox bi moo woyof mhm. muy jël euh, petit cola boole kook sungufu ñam bi ak euh, ak euh, ceeb ceeb déglu leen waaw ceeb petit cola waaw petit cola sungufu ñam bi sungufu ñam bi ak ceeb bii nii waaw ceeb boo xam dañ koo sebet ba pare waaw dëbb ko maanaam loolu mu boole ko di ko lekk bu incha allahu bi bu fekkee ni man nii bu oyof la. waaw sunu borom dana dana dana dana dana ko dana saafara. boobu moom jarul boole boobu jarul nga koy booleeg dara waaye salaatu ala nabi bi moom. waaw moom dee ko dee ko dee ko dee ko def. di ko wanaasu di wan di wanaasu di wanaasu. mais mais ban salaatu ala nabi ngay jox nit ñi. Mhm. boo xam ni. Mhm. aajo bi da koy faj léegi léegi léegi. Mhm. nga xale yi bëgg a tukki bañ jaar ci gaal gi. nga xam ni bu ñu bëggee visa mu yomb. ñi nga xam ni bëgg nañu bayre ban salaatu nga leen di jox pour nu koy jëfandikoo mais ñi nga xam ne jàng na nañu ba noppi bëgg liggéey amuñu ko mhm. ban salaatu nga leen di jox pour nu koy jëfandikoo maanaam pour porte yi woon ubbeeku waa li ma li ma joxe woon muy allahuma salli alal mawsuuf bil karami wal juudi boobu dama koo joxe woon te joxewuma woon lim yi maanaam 872 képp ku ko man di ko saxal 872 allahuma salli alal suuf bil karami wal juudi doo jeexal sunu borom dana la dimbali da nga am wërsëg nit ñi dinañ la bëgg. manam allahumma salli. ala al-mawsuf ala al-mawsuf bil karami bil karami. wal judi wal juudi. 872. nga wirdu ko 872. 12 wala 333. wala 333. wa mom mom mom amul amul ma dem te ñëw bu dee ki nga xamanteni nak da bëgg bayre bayre bu wir. boo xamante ne xam nga bayre salaatu ala nabi mais bayre bu àndul ak xaalis nag sëriñ bi xam nga dafa neexul nag non maanaam salaatu ala nabi moom nit ki mënu koo wér te du am xaalis mënta nekk maanaam salaatu ala nabi waaw nit mënu koy wér te du am xaalis salaatu ala nabi nit mënu koy wér nit ki di ko gis di ko yërëm salaatu ala nabi nit ki mënul wér de salaatu ala nabi di dee di dem sawara salaatu ala nabi moom la nit nangu maanaam di ko wér te àndoog njàpp ak fo meuna ne fu barab ba khat khat khat khat ak lu mu metti metti metti salatu ala nabi bo fa def sunu borom dakoy koy nangu yàlla mo ni boo def maag yow ñoy andando diko def allahu akbar moy metti bi nga xamanteni ni yàlla nak mo bëgg rasulullahi bëgg gim ko bëgg sallallahu alayhi wasallam manam manam yàlla dafa faral dafa faral yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko lo xamanteni ni joxuko ku yàlla bind degom seigne touba ni min nurihi kullu nurin ساعتهم بسنة نور النجوم ونور الشمس والخمر بالله خمو كن كن جهنا ما نم نينا لير وجنتي بسال الله عليه وسلم نينا مبولم لير قوم من الجس نينا سنو بروم ci leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko branché mais mais sëriñ bi bari na koo xam ne daf naan la dama ubbi boutique boutique ba daanu na dama doon commerce sama alal yàqu na dama ubbi benn société mu commencé dox ñu def fa ay liggéey ba ba société ba daanu na mais ñooñu lan nga leen mën a jox ñi nga xam ni euh, wut nañu ba am ba am euh, as tuut di ci def commerce di tukkee ka ñëw mbaa ñu ubbi boutique di ca jaay mbaa ñu ubbi société pour mu gën a yokk ba a wàññee ko léegi loolu li li liy dimbali bala ngay am ngay ngay ngay ngay ngay fagaru balaa looloo dikk Mana bala ngay koy commencer wa dego sëñ bi neena wa dameran ku laa hada intuduru bina naa xablal wusuuli waaw na nga na nga note bepp non bo xamanteni day lor waye bul bayyi bamu aksi agsi xablal bala aksi manam bo ci nekké ci ngay manam bala nga comme ni ngay bëgg ubi boutique ci ngay wut ñaan yi tax boutique bi dox mais soko ubbe ba pare nak boko ubbe ba pare mm, amna ñaan yo xam boko fa defé mu dox boko ubbe par après mu daanu boko ubbe ba ba pare après mu daanu amna yo xamanteni xamante def mu jóg ki nga xamante ne nii da koo ah, ubbi yaa ñu waxoon di nga ñu baaxee dara de. pour loolu dama koy joxe maanaam gis nga dama ci profité. Mhm. Mhm. léeg-léeg sëriñ si woo ma. Mhm. bu ñu ma wala ñu message ma wax ma lu leen neex. amul jafe-jafe. maanaam dañ lay wax ni. waaw maanaam xam yi ngay baaxee jaam ñi waroo koo def. waruma koo def. waaw. ah war naa koo def. xam nga lu tax lenn li maa ko tarbiyewu lenn li maa ko jënd ak sama xaalis lenn li maa ko donn jaay nag ku am njëg dénkaane ka nga wóolu maye kala neex man mm-hmm. sénégalais yi sénégalais yi ñoo ma neex ma leen di may sama xam-xam allahu akbar alaaj Pape lii de defe naa moom doy na waar de ah. te yaa ko tarbiyu maa ko tarbiyu nel benn bii ay tur yàlla yoo jënd bii maa ko jënd man sama kër barke Cheikh Ahmadou Bamba jaay naa ko jox ko sama baay moom ma jaay moom laa jaay kër damaa jaay kër gi yëkkati xaalis bi yëpp jox ko sama baay mu yëkkati kaggu yeeg yëpp jox ma leer na yeneen yi man maa jël sama xaalis ñi jënd ko moomal ko sama bopp leneen li maa tër bi yow sonn ci ban jox ma ko leneen li maa ko donn waaw léegi nag su ma neexee maye. waaw dëgg dëgg nag nag wax dëgg yàlla. su ma neexee ndax yàlla fin mu ne nii xam nga ñun gënuñu ñi nga xamante ne nii dañoo war a xam secret yi te xamuñu ko. waaye kon wax gi nga koy wax ñay bind jox nga leen ci ndigal. man maa leen ci jox ndigal jërëjëf. mais ndekete xam-xam toll na fii yëpp. wallaahi alaaj pap ci yàlla. ndax fi ne ñi nga xamante ne nii maanaam comme euh, sëñ maan mii. Mhm. Euh, xamul xamul njëriñu Fatiha. ndoy dollar te gënuma ko. man ma jox ko ko ndax suñu borom moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu gën moo moom secret yi bu ko neexoon muur suñuy bopp ba duñ ko xam. léegi nag bu muree suñu bopp ba ñu xam ko ñi nga xam te te jox ñu ko ñu def ko ba jariñoo ci lu tax man du ma la ko jox nga jariñu ci. allahu akbar loolu mooy mooy yoon. Mhm, mhm. moo tax nag nit ku nekk war ngaa def loo xamante ne nii ci sa adduna. boo boo fi boo génnee àdduna bu ëllëgee ñu la koy fàttali ko mais pour mhm. société bi dox commerce bi commerce bi dox boutique bi bañ a daanu jaay mi bañ a yàqu alaaji papaan lii ma a joxe nii nii nii nii waaw maanaam sangat la boo xam ni xam naa ne ki koy bind moom da nga ko fay xaalis bu bari mu bindal la ko waaw waaye képp ku ko def ak foo mën a ne ci adduna mhm. da nga falu falu goo a ngi fi bind rek def maanaam falu mhm. falu goo bëgg a falu <laughs> bindee métier am non mais Babacar bindee métier am du nelaw gudd nelaw bi falu falu bëgg a ubbeeku goo bëgg a wërsëg boo bëgg a am njaboot goo bëgg am boo ko defee sunu borom dana la ko may. maanaam. fal goo bëgg ñu fal la ko. fal goo bëgg ñu fal la ko ak mu mën a doon. am na fal yoo xamante ne da nga koy falu maanaam chaque semaine alxamis wala àllarba yaa ngi tiit ñu wàcce la ndax décret. neel benn benn ngoog de dëgg la de. am na ci falu yoo xam ni danga koy falu ba pare doo ko tal da ngay feebar ba jóge fa. waaw am na ci falu yoo xamante ni nii da nga koy fal waaye du neex na nga ko bëgg na nga na nga bëggee mu am maanaam na nga bëggee ñu palee la ko maanaam cat da la ciy jiitu waaw waaw léegi nag boo bindee suratul fatiha fatiha bind leen 4444 mhm, mhm. bind xulullaahuma 4444 4444 xulullaa xulullaahuma maalikul mulki nga bind ko 4444 qul malikul malikal mulk tuutil mulk man tasha waaw wa tanziul mulka mimman tasha mhm. nga bindu ko boo ko mënul nga jox ko lako bindal ah? boko boo ko mënul nga jox lako bindal ko bindal ko lako bindal nga bindu ko 4444 mhm. mhm. nga bindu suratul baqar bo ñewé ba ca fa sa yegg ko humullah wa samin alim bat bobu fa sa yegg fii ko humullah wa samin alim nga baamu ko 4444 agale sar bi ñew ci suratu maida bo ñewé ba ca wallahu yaxsimuka minan nas nga baamu ko 4444 yeggale saar bi da nga koy bind waaw dem ca alimran boo ñëwee ba ca asbunallahu wa nihmal wakil nga baamu ko 4444 àggale saar bi kon mhm. ñetti saar yaa ngoo waaw léegi nga bind falaxi 777 bind naa si 777 wutal ndox yi may wax ndoxu teen ndoxu ndoxu géej mhm. ak ndoxu robinet mhm. nga boole ko ak parfum misk zaxfaraan maul werd nga di ko sangoo léegi nag bala nga koo sangoo fexeel ba génn sarax bu diis nga génn ko billahi lazi la ilaha sarax bu lan sarax bu diis maanaam bu la nexe nga jënd tonu ceeb nga saraxe ko bu la neexee nga jënd nak nga jënd nak nga saraxe ko fi sa doole tollu waw nga xamanteni li nga gëna bëgg nga génne ko mais bo amul yoyu nak boko amul nga gënne ci sa alal li nga gëna bëgg nga jëra jëf jëra jëf nak nga di sango boole ko sel alquran lu selul bokku ci bokku ci bo hmm. selé suñu borom dana la dimbali di nga ko ubbe ko gula yeen man mala wax ni hmm. lolu ci sangat yi la bokk na ci sangat yi tamit junni fatiha mhm. moom boo ko bindee it moom di ko sangoo sunu borom dana la ubbi ubbi gula yéem junni fatiha junni fatiha waaye nag fexeel ba yow doo ànd ak dara da nga koy bind waaw maanaam fexeel yow ba bindkat bi na bëgg rek xam nga sax nga dem ci euh, li may li may reetaan léeg-léeg léeg da ngay jekki-jekki nit ñëw bett la jox la alal ju bari ne ñaanal ma loo ma ñaanal baax na mhm. kooku boo koy defal day mel ni gaynde goo goo goo fekk mu tëdd nga dóor ko mhm. bu jógee ci sa kaw lay dal wallaahi loolu day am mhm. am na ñoo xamante ne nag bu ñëwee dañu naan la euh, comme ni exemple nga ñëw ma ne la ñaari junni nga may fay nga naan man laay xanaa du yow yaa toogoon ci tele bi di maye di maye secret yi mhm. secret bu ma mayee moom bu la neexee nga def ko waaye boo ma liggéeyloo nag ma fay waaw ndax dëgg la wala de dëgg la loolu mooy loolu mooy àdduna waaye nag yow bu fekkee ni man mii liggéey dama am ay employé am ñuy bind am ñuy nangam am ñuy nangam léegi yow ma nga bëgg lii ma wax léegi nii ma bind ko jël ko may la ko mën naa ko waaye nag am na loo xamante ne bu fekkee dañ ko bëgg defal junni nit wala ñaari junni nit da ngay sonn mais ñi nekk bitim réew bëgg këyit këyit ba ak ñi nga xam ne ñu ngi sëy seen sëy yaa ngi def kalaj kalaj kalaj kalaj mhm. ak jigéen ñi nga xam ne toog nanu mhm. euh, amuñu borom kër mhm. ak jigéen ñi nga xam ne bu ñu duggee ci sëy bii cat jàpp ñu génn dugg ci bii cat jàpp leen ci ñu dugg ci génn ci dugg mais mbir mbirum pour sange ko ak xale yi nga xam ni te nañ seeni waajur ñii ña ngay dorogewu mhm. ñii ña ngay tux yàmbaa mhm. ñii gis seen i wayjur gisatuñu leen mhm. xale yi nga xam ne të nañ seen i wayjur xale bu të ak sëy buy karaj-karaj yi ah, ak jigéen bu bëgg am borom kër ak góor boo xam ni ah, euh, soxna su ma am tàqalikoog moom lan ngay ja baaxee jaam ñi pour loolu loolu ñu toog ci léegi soxna si nga xamante ni foo mu euh, maanaam mm, jëkkër bu mu am tàqalikoog moom jëkkër bu mu am tàqalikoog moom waaw ak góor goo xamante ni soxna su ma am tàqalikoog moom ñaar da koy waral Euh, li koy waral mooy jinne li ñu naan jinne mhm. jinne nag moom ñu bari moom la ñuy wax rab ndax rab ak jinne mi ngi mel ni bëy ak kéwal mhm. benn la mhm. bii daa nekk ci àll bi bii nekk ci kër gi mais ki nga xamante ne daa am jëkkëru jinne wala mu am jëkkëru rab kooku mën nay sabab sabab mën naa nekk sabab bi nga xamante ni day am muy tas léegi kooku bu fekkee ni loolu moo ko dal muy góor gi muy jigéen ji am na benn secret bu ñuy wax lu lumu ak lu mu mën a doon rek lumu lumu noonu la secret bi tudd waaw lumu lumu waaw waaw da ngay bind fatiha 111 waaw wasamaay wa taarix 111 kursi yu 111 fatiha 111 wasamaay wa taarix 111 kursi yu 111 kursi yu ak ak laxat jaakum bu ci ne 111 waaw déedéet kursi yu nga bind ko 111 waaw falaxi 111 naasi 111 laxat jaakum bokk fatiha 111 Falaire 111 mm -hmm. Nasi 111 wasamaay wataarix 111 kursi 111 Mm -hmm. bindee ba mu pare am na xaatim bu ñuy wax xaatimu Souleymane waaw nga bind ko bu ci nekk maanaam bunt bu ne dimanche nga koy tàmbali altine talaata àllarba alxamis ajjuma bu dee sawar nga mhm. bunt bu ne nga bind ko 111 mhm. boo sawarul buntu bu ne nga bind ko juróom-ñaari yoon mhm. nga boole ko nga def ko saafara nga diko sango manam maanaam li ñuy wax naan euh, jinne rab beeg nangam nangam dama bëgg nga xam ni jinne lu mu garaaw garaw garaaw garaw doomu aadama nitu ko ëpp doole ndax doomu aadama moo gën ci lu yàlla bind billaahi jinne lu mu garaaw garaaw garaw garaaw mhm. alxuraan moo ko gën mhm. maanaam fi ne dama bëgg ñu génne ci xelu nit ñi que jinne maanaam faawu nangam faawu nangam maanaam tiital nit ñi ba nga xamante ni nii Euh, dañuy chaque jour. Mhm. seen xel yi ci li muy dem daal. Mhm. mooy rab bi wala jinne ji wala nangam ak nangam. Mhm. te fekk ne yooyu yëpp mën naa deñ. wallaahi mën naa deñ deñ gu wér. secret yii nii nga xamante ne nit ki bu koy jëfandikoo suñu borom da koy dimbali ci loolu. man dama bëggoon yàlla dimbali ma ba nit ñi eh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jariñoo sama xam-xam. ndax lépp lu may joxe rek man fi ne li may gën a kontaan loolu léeg ma dawal sama oto. jékki-jékki nit daal di taxaw gis ma ci circulation bi taxaw ñëw yëkkati lu bari jox ma mhm. ni ma da ngaa joxe woon secret sàngam ma def ko gis ci sama bopp waaye maa la jox lii addi yonent bi daal di dem ma dem du jël sama téléphone jëluma téléphone am mhm. loolu nag du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon moo tax léegi yi may joxe nga xamante ni ci sama page Facebook bi soldaaru Serigne Touba Samb nga xam benn boobu laa am aw ma ñaar aw ma ñett mhm. képp koo xamante ni dugg nga fa lépp lu may joxe ci ci wàllu secret yi. Mhm. di nga ko ci di nga ko ci fekk. mais mais jigéen ñi bëgg borom kër ak góor ñi bëgg soxna. waaw dama ne la woon joxoon naa la allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. waaw la boo ko bindee mille cent quarante. waaw nga boole ko suufu jumaa suufu marché suufu xorondom. suufu jumaa suufu marché suufu xorondom. waa léegi bu dee góor la buy wut soxna. na fexe ba wut karawu jigéen raxas ko ba mu set def ko ci biir saafara si di ko sangoo. karaw maanaam karaw bopp bi. waaw karaw bopp déedéet pas karaw bopp maanaam karawu jigéen rek jum mën a doon. waaw na ko raxas ba mu set def ko ci biir saafara si di ko. mais du nekk ay mees. déedéet du nekk karaw karaw naturel bu jigéen bu dee bu góor bu dee góor mooy wut soxna bu ko defee sunu mhm. borom bala balay saafara sañ di di def ay ñaari semaine ñetti semaine sunu borom dana ko may soxna bu dee jigéen tamit moo bëgg borom kër di ko def sunu borom dana ko may ba tey jii jigéen bu jigéen ju bindulu yaa waduudu junni yaa waduudu yaa waduudu yaa waduudu junni waaw di ko di ko di ko sangoo mhm. heure bu jullee bu fekkee julli heure bu jullee mu def ko vingt fois bu fekkee ni du julli bis bu jot mu def ko téeméer yaa wadudu yaa wadudu dina dem ba nga xamanteni ni ni waaw manam maanaam euh, góor ñi mom mom ko jigen ki wa góor ñi ñoo koy dañ koy songu dañ koy songu legi nak mom ci bopam moy dem ba kim bëgg moy ñi amagul la wax ñi amagul mais ñi am jëkkër jaru koy def jaruñu koy def parce que góor ñi lañ leen di songu wa wa ñi amagul ñi amagul borom kër mhm. ñun legi boko xasse am nak nga bayiko legi legi nak nag yooyu yi nga xamanteni rab koy sabab waaye ki nga xamante ne nii tamit am na ñoo xamante ne nii exemple dañuy ñëw ngoro ak góor ni ko dama laa bëgg góor gi di dépenser ci ñoom xaalis ñu xëy xëy bàyyi ko fa neel benn. waaw dem ànd ak keneen. yooyu it dana waral nit kooku ci sëy bu mu dugg sëy boobu du yàgg mooy tas yaakaar gi. léegi nag léeg-léeg nag ànd di lekk xaalis moom yaa trahir ko trahir ko dem ci keneen. loolu danay waral tamit sëy boo dugg du du du doo ci am li nga bëgg waaye ba tey jii tamit bu fekkee ni loolu am na am na ci góor ñoo xam boo leen ko defee dinañ la tëj ba doo sëyati moom maanaam nit day ñëw waxaale ba wax ni jàpp nañ bis dootoo ko dégg dootoo gis. am na jigéen junni ma. Mhm. bi mu waree waayam ji. Mhm. da koo ko dootoo sëy ci àddina. waaw du am na am na kay am na yoo xam boo ko bindee nii def ko ci enveloppe. waaw denc ko ci bàmmeel. ba yomal xiyaam tant que bokk nekk ci bàmmeel bi ñëwul takk ndaw soosu kenn du ko takk. lan yooyu am na. waaw mais xanaa anti am mën nañ ko dindi lool. waaw yooyu am na am na am na am na mën nañ koo def nit. parce que am nañ ko ñu ko def ah? mën nañ koo def nit mais mën nañ koo dindi. mën nañ koo dindi. waaw léegi nag yooyu yii koy bokk na ci yi koy dindi. waaw euh, junni tabat yada abi lahabin. waaw bind ko boole koog euh, euh, junni. junni waaw Muhammad yaa baax waay. junni junni junni daju sump waaw. ak téeméeri xeer di ko sangoo bu soobee yàlla day dañ ba tey jii 70 tabat yedda 70 tabat yedda waaw nga bind ko boole ko xasu xay di ko sangoo moom it day dindi liggéey ba tey jii juróom-ñeenti tabat yedda mhm. nga bind ko boole ko xasu xay mhm. day dindi liggéey liggéey yi ñu lay liggéey day dañ waaw liggéey yi ñu lay liggéey mais mais sëriñ bi am na ñuy wax ni euh, am nañu soxna mhm. ñu ngeeg seen borom kër sëy bi ñëpp am ci yaakaar ñu bëggante mais kenn kenn ku ne boo gisee sa morom sa day tàng. waa léegi léegi léeg-léeg nag tamit euh, alaaj Pam sëy ku ciy dugg na ko seet. waaw bari na ku dugg ci sëy affaire am yëpp yàqu. dafa am benn seet boo xam dama koo jàngale te mu nekk lu efficace. mooy dangay jël turu turu waa ji. waaw alaaji Pape Hann. jël jël Fatou Ndiaye. Mhm. ñoom ñaar noonu la tudd. waaw. indo waaw. ñoom ñaar li si xaar naa ko. ñoom ñaar ñoom ñaar nga adat ko. Uh-huh. léegi boo ko adadee. waaw yokk ci chiffre sept. ah da ngay adat. sama tur. waaw adat tur soxna si. ba pare yokk ci sept. ma yokk waaw. léegi nag nga koy wàññi. ma ne nga koy wàññi nga koy wàññi. <laughs> non laa def dama dama leen <laughs> ah. dugg. ah dama ko li xaar. Mhm. Mhm. léegi nag nga koy wàññi par par nga koy wàññi par par Mm. léegi nag bu desee un maanaam sëy boobu ndaw si du la wàññi du la yokk mm-hmm. du la wàññi dara du la yokk dara maanaam seen sëy mën ngeen a sëy waaw bu dee deux mooy day nekk ngoro goo xam ne day dëgëra dëgëra dëgëra dëgër waaye bu sëy amee waa ji dina ci gis boppam soxna si gis ci boppam mm-hmm. bu desee trois mm-hmm. waa bu yoroon milliard dana yalwaan yi lan maa la wax li ci yàlla mooy ñi amoon takk soxna yëf yi deñ yëf yi deñ hmm. jekki yoonatuñu dara mais bi mënul ndax na ci def ñaan mën ci def ñaan adat ba nga ada waaw <laughs> yàlla ci musa adat bi nga ada waaw moom ngay génnee jënd ko biscuit suukar ak tàndarma ah. ñaan ci ñaan ci yàlla defal la ci sëy boobu lépp lu ci lore mu deñ hmm. après nga ko ah. am yu am solo la yo xam ne góor gu koy def gafu jigen dula dal jigen bu ko defit gaafu gor du la dal ndax ni gor amé gaaf non la jigen amé gaaf mhm. wa lu mel ni kata ab secret la bo xamanteni boko bindé nga sangoo ko mhm. bu soobee yalla sunu borom dana dimbali ba yoy do ko do ko ki kep ko xamanteni tamit bala ngay seyeti nga bind euh, salamun xawla min rabbin rahimin 313 wallahu yahsimuka mina nas 313 inna batsa rabbika lasadidun sa 313 nga boole ko cin ma euh, nga boole ko këriñ këriñ waaw nga bàyyi ba mu guddi nga sangoo ko benn yoon maanaam soxna si donte jinne la joo xamante ne nii ku ko takk faatu boo ko takkee sunu borom dana la musal ci loolu mm-hmm. fi ne fi ne am na ci jigéen ñoo xam ne ku leen takk ñu tënj la waaw am na ci góor ñoo xam ne ku ñu takk it maanaam nga nga nga faatu nga faatu maanaam yooyu moom lu wér wér la lu am la mais am na lu koy dindi mooy li nga wax waaw am na lu koy dindi mooy mooy fegu yi nga xamante ne am na yoo xamante ne day dindi gaaf nit daal warul bàyyi yaramam daal waru koo bàyyi ci benn benn benn jamono waru koo bàyyi ci benn benn benn jamono mais salaatal fatih ndax mën am moom moom it indi nga ñu allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ak allahumma salli mhm. euh, ala mawsuufin bil karami wal juudi waaw léegi ah, léegi léegi mais mais mais salaatal fatih fan laa tàmbalee woon bi ñuy waxtaan yaa ngi tàmbalee fatiha mhm. mhm. indil ñu basmala indi ñu salaatu bi ñu nga njëkk a wax mhm. ak salaatu ala nabi waaw waaw mbooleem li ma fi wax yëpp seen njariñ waaw ak seeni xéwal waaw ak seeni i ngëneel waaw mi ngi ci salaatul fatiha mhm. mhm. ah waaw fatiha beeg lépp mi ngi ci salaatul fatiha salaatul fatiha boroomam nee na képp ku ko wax benn yoon dem sawara bu bis pencee na nga ko poñe waaw salaatul fatiha képp ku jàpp ba pare tari ko sunu borom jéggal la say bàkkaar ci saasi salaatul fatiha képp koo xamante ne nii saxal na ko ñetti yoon ñetti yoon heure bu jullee waaw wala sa yoon bis bu jot suñu borom dimbali ko allahu akbar dana ko dimbali zahir dimbali ko baatin benn salaatul fatiha laa la wax maanaam xëyal rek nga ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin lil fatihi lima uhliha wal xaatimi lima sabaha naasiril haq bil haqi wal haadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haq xadirihi wa miqdaarihi azim nga wax ko te boo ko waxee yoon suñu borom dimbali la benn yoon laa la wax alaaji pap par bis ben yon par bis. Mhm. do dem do dem do dem sawara boy day dem aljana fi ne même new bi nga xamanteni ni ñu ngi koy bëgg duggal ci biir bammel nit ki taxaw tib ci suufu suufu bammel bi. suufu bi ñu gas. tari ci ñetti salatul fatiha dal di koy soti ci biir bammel bi ñu duggal ko manam koku du gis lu ko nakari ci biir bammel allahu akbar Manam goor yalla harif billahi bo xamanteni ni jaamuna yalla jundi at taxamul salatul fatiha te waxul salatul fatiha la wax ben yon ci dundam. Mhm. yow mi nga xamante ne wax nga benn peru salaatul fatiha junni at boobu mu jaamu yàlla moog salaatu benn salaatu fatiha boobu ñooy tolloo. la ilaha illallah est-ce que mën nga ko mën nga ko firi ci wolof. alfatih li ma uxliqa mhm. mooy kii ubbi. li tëju woon li tëju. alxaatimi li ma sabax. mottali li manqué. naasiril xaq bil xaq. yàlla mi nga xam ne mooy aji dimbal. وبالحق انزلناه آه، آه، وبالحق وبالحق نزل دغ جي مو واتي موم القران موم غا خامني كاد لا خم سي بوروم بي سبحانه وتعالى لا جوغي صلاه الفاتحه كو وعلى اله حق قدره ومقداره مانام مانام درجه صلاه الفاتحه درجه بي الله بوكو ماك ني دون انسيستي سي حق قدره حق قدره وا حق قدره مانام <laughs> لما جا خم موكو واخي ادنا توكي <laughs> في ني مانام دغي دغي دغي درجه فاتحه الله جي الله جي باب alaaji Pape day kupp kapp kupp mhm. da ngay dégg ñuy wax benn salaatul fatih mooy juróom benn téeméer mhm. ci beneen salaatu bu dul moom mais man jàng naa téere boo xam ne boo fa demee mhm. benn salaatul fatiha six cent mille beneen salaatu la bu dul moom benn salaatul fatiha wo na six cent mille salaatu bu dul moom allahu akbar waaye léegi kon nan lañu mën a nekkee ci adduna nga xool Cheikh Ahmada Tidiane ni mu mel. Cherifil ni mu mel ak sunu borom lim ko dimbalee. Mhm. lim ko yàqal ci ndabam. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg léegi yàq boobu mu ko yàqal ci ndabam moo tax waa këram bu ñu ci bu ñu ci bu ñu ci bu ñu ci sukkee. Mhm. feneen du leen doy foofu rek leen doy. wallaahi wallaahi Mouhamed. kon Cheikh Ahmad Tidiane lii sëñ Tuubaa wax ni. laa zaala baynal xawmi kal marjaani daa mel ni wurus boo xamante ne nii dafa beru ci xeet wi. Mhm. seexul khadim moo ko wax seexul tijaani moo ko wax mag ñu baax képp koo xamante ne am nga ak leer ci sa xol mhm. da ngay nangul Cheikh Ahmada Tijaani maanaam ku am leer ci sa xol leer ci sa xol sëñ Tuubaa nee wala tuwaadu man raaytumul faahu yuhriju laa ilaha billaahi mooy bu leen jël mukk di gis nit muy wax laa ilaha illallah ngeen def ko noonu bu ñu nangu mukk mukk mukk ci aduna. ak ku mu mën doon mhm. ci aduna. ñuy jaxase tarixa yi alaaji pap mhm. li nga nekk moo la doy téye ko billaahi te yow jarul ngay wax ni cheikh moo baax wala cheikh nangam wala nan wala nangam cheikh ahmada tidiane dafa baax ñëpp nangul nañ ko ko ñëpp wér na waaye yow fexeel ba yow defar sa jëmm ku la gis xam ne cheikh ahmada tidiane jàkk xam ne tidiane xam ne xam ne xam ne mhm. xam ne xam ne baax na Ah, ah, loolu loolu mooy loolu mooy loolu mooy mbir mi. loolu mooy mbir mi. waaye yow jàpp ni. Ah. Eh, fii ma nekk moo gën fee wala nangam ak nangam. Mhm. loolu loolu mënta ne. Mhm. waaye nag gis nga yàlla. Mhm. mooy jël lu ne gënale ko. gis nga gis nga boo taari woon tey ji inna anzalnaahu fii laylatul xadr boo ñëwee ba ci tan tanazalul malaaikatu ca zilzil ja est-ce que tanazalul malaaikatu waaw jibril est-ce que du malaayika malaayika la lu tax mu ni warooxu ndax malaaka yi dañuy wàcc war ruux ànd ak ah, ànd ak jibril te jibril malaayika waaw mënoon na ni uh, tanazalul malaayikatu ñoom ñëpp rek bu ko defee jibril ak ñëpp dañuy dugg ci biir te war ruuxu gi jibril la way war jibril la noonu suñu borom nag di jëlee ay mbiram maanaam fi ne bu la bu la bu diw nee sama sëriñ de yàlla may na ko nangam ak nangam ak nangam saa soo ko weddee rek mooy yàlla dangay day mel ni yow da ngay wax ni yàlla aayul mm-hmm. ndax yaa ngi dégg mm-hmm. sama sëriñ may na may may yàlla may na ko ku ko teg bët doo dem doo dem sawara sama sëriñ may na ko képp koo xamante ni xam nga turam doo lakk yow loolu boo ko weddee rek mooy yàlla ayul mais mais li nga bégalee mboolem koy jullit bégalee ko mboolem ñi yaakaar Cheikhul Tidiane yi sopp ko mhm. euh, mais Cheikhul Khadim mi nga xam ni mooy sa yaakaar àddina ak alaxira mhm. euh, sabxun taqi bi nga xam ni moom itam euh, yaakaar naa kuy kuy njabootu Cheikhul Khadim ñi ne ca kaw nag laa wax te te xam mbooti Ahmadul Khadim ndax mën nga cee dimbali téléspectateurs yi lan ci sabon taqi sabon taqi waaw moo waral coow li nag waaw xam nga sabon taqee ah yëfi aarif la ah baax na aarif yee ko moom <laughs> sabon taqi damay dem Touba dafa juróom fan jar na ko ah baax na sabon taqi dama koy def uh-huh. kër soxna Muminatu Kebe laay dal wallaay jar na ko waaw maag sa njiili uh-huh. <laughs> ah alaaj pap sabon taqi dafa doy waar de macha allah sëñ Touba nee na boo ko xamee maanaam mbaax mbaax a koy fay li nga wax ci salatul fatihi muy deug gu wir wa njabootu cheikhul xadim it bégal leen sa bon taxi yi ci julit ni ñun tiijaan yi nga bégal nuti sa bon taxi sa bon taxi mbir la mo xamne seigne touba moko bind waye notice bi rek la bind ah fi ne ñi ko jang ñep notice bi ki jang xasida gi notice bi la am notice bi nak moy boko xame sa juróom-ñetti bunti aljana dañ koy ubbi tëjal la sa juróom-ñaari bunti sawal notice bi rek. waaw noti maanaam mbóot ma. mbóot ma. mi mbóot mi ci ci fi mu nga xamante ne nii falaa ko gis muy mbindum sëñ Touba. Mhm. maanaam mbindum sëñ Touba mbindum loxo waxuma ay photocopie ak yooyu. Mhm. mbind ma. nee na boo ko yoree barakatul kun fayakoon ngay yor ci sa làmmiñ. loo loo wax yàlla dogal ko. Ah, maanaam da bokk ci ñi yàlla waxoon ni euh, lu ñu wax ma def. inna li lay xaw mun isa araadu araadallahu mi ngi noonu. ba pare tamit heure boo koy bu fekkee ne yor nga ko. manam bis bu jot suñu borom bindal la jaamu yalla téeméeri at. waaw loolu fu ñu koy jëlé nak señ bi. ah señ Fall mom la yoroon looloo waral na am mu am ji. wax nga dëgg de. <laughs> laaj ma rek ma. tawal way tawal way na tawal waay mu taw. han jaamu yalla téeméeri at. euh bis bu jot ñu bindal la ko. Eh, eh. boo ko xamee. maanaam tajuudu bi dirhami wa dinari day maye ay millions ki milliards. han waaw mom sa fon tax

bala mu tontu on va euh, dama bëgg mu euh, euh, mu baxé ñu quelques réponses rek. waaw ndax am ñu bëri ñuy dinañ téléphone bi. Mhm. joxé adresse Facebook bi pour suñu xarit yi koy laccé amna jigen buy ni ku bëgg bu gaaw accouchement bu gaaw. day bind Fatiha. waaw bu bind rek def ko saafara naan ko maanaam nag na na ko wóor ni mat gi moom euh, maanaam mi ngi ci mat mhm. bu koy naan sunu boroom di ko may mu mucc lu muy bind nga ni faatiha lay bind faatiha benn diggante aaya bu ne mhm. yàlla tiif la ciy def juróom-ñeent mhm. bu paree mu xooj ko bu ko neexee boole koog ndoxum sam-sam bu koy naan sunu borom di def mu mucc waaw d'accord bu ko mënul bu ko bind ba tey mu joxe ñu bind mën na koo tari mën na koo tari tari faatiha alhamdulilahi rabbil alamin yàlla tiif yaa latif yaa latif juróom-ñeent. arrahmaani rahim yaa latif yaa latif yaa latif yaa latif juróom-ñeent. maanaam yooyu yaa latif yaa latif noonu la koy toppee ba ci wàllu benn bi mu ne yaa latif juróom-ñeent. daal di koy ëf ci ndox mi. daal koy naan. ba tey jii ñetti saar yi nga xamante daa ñëw ci alxuraan amul keef. muy li ilaafi Quraysh wala ak falax képp ku ko a bu ko defee sunu borom dina ko may lii laaf Quraysh wal asri ak wal asri ak fallaxi mooy ñetti saar yoo xam ne amul keef waaw ñetti saar yooyu même boo nekkee ci place bañ bi sunu borom da lay ci loolu mais mais fi mu toll njaboot yi ñëpp a tiit waaw comme doom bu jigéen rawatina mhm. tiit nga sa doom bu jàngee sax yaa ngi tiit mhm. mais ñi am seen doom yi jigéen ñi nag mhm. te réew mi ñi fiy violé waate dafa bari waaw léegi pour nga am sa doom bu jigéen bañ kenn violé ko mhm. bañ kenn àgg ci kawam mhm. ba keroog muy am borom kër mhm. nooy def loolu am na léegi bu juddoo rek bu juddoo rek na baayam wala yaayam tari ina anzalnaahu benn yoon benn yoon tifli ko ci bu dee sexe góor la. mu tifli ko ci bu dee bu jigéen mu tifli ko ci sexe bi. waaw léegi nag bu ko defee kooku moom du may yàlla ba keroog muy. bu demee bay xaw a màgg nag. bu bu demee bay xaw a màgg. waaw xunut. allahumma inna nasta'iinuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa na'lamu laka wa na'lamu. wa natruku man yakfuruka. allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli nashaa wa nakhfidu narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka al-jadd. inna 'adhabaka bil kaafiriina mulhiqun. waaw day bind bu góor a kenn du ko maas kenn maasu ko kenn tomb ko waaw mu wut silib yu bees mhm. silib yu bees maanaam euh, waaw njiital silib bu bees maanaam xam-xam boo koy jàngale na leer rek silib silib bu bu bees mhm. mu xooj ko ci biir saafara si mhm. ci tooyaay bi na ko jox xale bi mu sol ko bu ko solee bàyyi na bàyyi ba mu wow ah ah kunut bi lay bind waaw def ko saafara def ko saafara jël silib bi yu bees yi sol ko def ko ci biir rek ci tooyaay bi mu solal ko xale bi waaw léegi bu ko solalee na ko bàyyi ba mu summil ko boppam bu ko sumee rek na ko jël ko na ko yaayam jël wala papaam jël dem ba ba fu sori mu gas ba mu xóot mu suul ko bu soobee yàlla xale boobu moom kenn du ko tiim ku dul borom këram. macha allah allahu akbar macha allah macha allah. dama koy bind yooyu dama koy ñu dem ñu dem ci ci ci fay fay rek ma bind. waaw kenn du ko tiim ku borom këram. Mhm. léegi tamit ki nga xamante ni da bëgg sunu borom dimbali la sa njaboot maanaam jub. na ngay bind ihdina siratal mustaqim 66 manam xalé yi deung wa xalé yi deung di nan sangara di nan sangara di dox yamba wa di dorogew mm-hmm. di doxi guddi eh, wa ba seni wayjur mm-hmm. ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ngay bind 66 waaw boole koog wa samaay wa tarikh ihdina siratal mustaqim wa rek fa nga yam ak wa samaay wa tarikh 66 wa wa samaay wa taarix ben yon ben yon bu ko defé nga def ko ci ci ci ndox wa mu di ko naan waaw billahi la ilaha illa huwa sunu borom dana len djubal mais ñi nek bitim rew bëgg kayit nak amunu ko wa légui nak ñoñu inna sabila yasaruhu lañuy ñuy wérdu 333 dégg ngeen inna sabila yasaruhu yasaruhu waaw ñuy wérdu ko 333 33 mom bu soobe yalla yit momit sunu borom dana la dimbali ba ngay man di am li nga bëgg manam sa yoon woowu yomba yomba yom ba jaaxal la voilà tark la alay pap turu yalla bu mujj bi légui nak tur yo tur yoy dafa am ñaari façon amna bu ñuy wax kamalul mi ati momo mo motali quatre vingt dix mhm. fukki araf la ak ñaar alaaji Pape Cheikh mhm. fukki araf ak ñaar la fukki araf ak ñaar téméré lu tur yalla bi mhm. fukki araf la ak ñaar alif la tàmbalee jeexe hmm bokut ak bi nga xamanteni ni hmm moom la ñuy nëbb nga xamanteni do amo droit wésu ci juroom ñeenti per bo ci wésu juroom per wala fukki per ak ñaar manam du doflo du du lo waye day ray bobu may ismullahi al azimul bobu it yàlla dogal na xam naa ko ah barke cheikhul khadim xam ko xam gu wér ismullahi al azimul bi ak kamalul miati bi ñom ñaar bokku ñu bi da motali téeméeréelu tur yàlla bi bi mokali bi motali bi bi mom nek lo xamanteni moy secret bi bobu boko xame do lak boko xame ku dugg suñu sa suñu borom jéggal ko boko xame même bo bo gungé néw néew ñaanaloo ko dara sunu borom djéggal ko. mais ku bëgg njit nak njit wara nek bëgg bëgg bëgg njit bëgg njit waaw. légui amna ay yoonu xalwatu yo xamanteni ni koko défal ko sunu borom da koy def njit légui ci suuratu yasin <laughs> fi ne bo fekkee ni da bu dee xalwa la maanaam sama mbokk sëriñ ci la koy may nga xamanteni nit ñi man ñi ñëw ñi bëgg ñëw ci man mënu ñoo accès dañoo bari waaw. léegi képp koo xam ne yàlla dogal na ak si woo waaw demal wut ku la jàngal 18 sóoratu yaasin 18 yaasin 17 yëpp da koy jàng noonu waaye 18e bi bu ko jàngee ba ci wa naa zallalnaaha lahum fa minhaa rakuubuhum wa minhaa yaakuluuna da koy def 174 mooy li mu xayu xayum léegi mu def yaa xayu yaa xayum 1566 mhm. bu paree mu continuer saar bi ba ci salaamun xawlan min rabbi rahimin mu def ko 4484 moy dasmas tasmas bu noppé mu yeggale sar wi bamu jeex tëje ko juróom-ñaari salatul fatiha non la koy topé ba mat juróom-ñaari fan mu wut am xar mu wéx tal mu saraxe ko aajo joju mom suñu borom bu fekké ni yëkkatu ko rek la bëgg dem ci kaw kaw kaw suñu borom dañ ko dimbalé xana xamone ne lahum fa minhaa rakubuhum wa minhaa yaakuluuna am na bu mu jàpp اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هذا دي خطر الامطار في لولو بوكو كالكولي موي 1566 1566 كون لي لي لي دوف كي نك بي xanaa kay xanaa kay li ñuy def mooy baaxee sa numéro nag téléspectateur yi bu ko defee nga àggaleeg ñoom parce que mm-hmm. ñu nit malheureusement heure bi daf ñoo tënk mm-hmm. ñu ngi waaja ñëw ci deuxième partie bi mm-hmm. ak euh, euh, deuxième invité bu quartier général euh, ren gis ngeen nii rek la ñu ko defee tànn ay thèmes mais ak des hommes qu'il faut ci plateau bi parce que c'est pas pour rien ñuy faral di wax ni quartier général mooy Sénégal njëriñ yaa ngi Euh, réew mi euh, sunu borom teral nañu euh, baaxee nañu ay borom xam-xam mm. yu mel nii sunu kilifa gi ñëw tey yii mu ñu baaxee nag mm. nag ak akuk mosol la mm-hmm. li ci des peut-être mën nañu leen joxaat numéro jox numéro téléphone am Euh, pour ñi ko soxla ak peut-être page Facebook bi ndax amna suma euh, membre fan ce club 5 euh, minutes de Pape Anne ñom Alice Newman. Mhm. ñun soxla nañu adresse Facebook bi. pour di gëstu. di mhm. xol yi nga xamanteni mu ngi ko sénégalais yi. mais numéro téléphone bi peut-être pour rendez-vous yeeg ñi la soxla. moy 77 809 47 95. 809. 47 95. 95 ak 78. 121 14 13. 78 121 14 13. 14 13 waaw 121 14 13. léegi léegi nag page Facebook bi moom soldaaru Serigne Touba ndax. am na ci fan yële. Mhm. dafa am koo xamante ni dafa pirate. Mhm. bind Serigne Moustapha Samb. mënul ñàkk.

121 14 13. adresse bi fan la adresse bi Nord Foire. kii boo ñëwee ba ci yum yum bi rek. yum yum bi rek boo laajtee kër soldaaru sëñ Touba ñu wan la ko. léegi bi ci des mooy. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni nii moom euh, euh, jàppale gi ci seenum xel. waaw ak seeni xalaat. waaw maanaam mënul ñàkk ma tudd leen. waaw ba tey jii tamit ndax euh, ñi fay ñëw ñëpp. Mm-hmm. du ñëpp laay mën a recevoir. waaw waaye dafa am koo xamante ne nii mooy sama jëwriñ ci liggéey bi. Mm-hmm. muy sëñ Xaadim Guèye. sëñ Xaadim Gueye maanaam koo fu ñëw fekkoo ma fa loo ko wax man nga ko wax lu mu la defal maa ko def benn la mhm. amul ñaar amul ñett mhm. sëñ Xaadim Gueye mhm. beneen bi ci des nag alaaji Pape dafa am ñoo xamante ni nii bi baax di am ba léegi ña ngay baax waaw ndax euh, sëñ Xaadim Mbàkke borom daaru tanzil doomu sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Aziz mu sëñ Baara gis nga li nga doon wax léegi muy affaire bor yeeg miraas ak yooyu da cay bind téere boo xam ni mat na 400 bayit leeral ko leeral boo xamante ni nii lu yéeme la mm-hmm. te nit ku nekk te ku ko xam ku nekk ki may wax ni ku ko xam ku nekk rek maanaam mën ngaa seede ci moom loolu mm-hmm. léegi nag téere yooyu dañoo dafa toll ci jamono joo xam ni kenn ku ci ne war ngaa jël sa njaboot jàngal ko ni ñuy sange néew ni ñuy jullee néew ni ñuy ni ñuy miraase yooyu yëpp dafa doon loo xam ne lu am solo jamono ji nit ñi talatuñ kenn miraasatuñu kenn normal dañuy séddale def lu leen neex léegi nag yooyu yëpp nga jàngal ko sa njaboot mm-hmm. sa njaboot nag euh, doom boo ne kowul wul baa bu ko bàyyiloo dara boo ni ko wul siin bu ko seen bu ko séentoo dara boo ni ko wul miim bu ko miimal dara mm-hmm. kon doom da nga koy da nga koy yar jàngal ko sëñ Mamoun Lo Gaydel aw mu baax sa xarit waaw sama xarit la mu soxna Baali moom nee naa ko loo may digal na doon lu baax ndax loo ma wax mm-hmm. dinaa ko def Lo Gaydel waaw loo ma wax naa ko def loo may digal na doon lu baax waaye gis naa gis naa paa boo xamante ni ay soxnaam la woo taaj leen di leen jàngal nu ñuy sangee néew mm-hmm. dëgg la waaw di leen ko jàngal Mouhamed Silla lay nuyu sama xarit Mouhamed Silla ñu koy nuyu bu baax Euh, euh, di nuyu nag sama papa. ndax maa ngi koy sant di ko gërëm ndax moom mooy sama xarit. mënoon naa judd mu tudde ma Albert wala tudde ma beneen tur. waaw waaye tur bi dàq ci tur yi laa tuddee daal daal ci sax. wala yooyu tur dàq ci tur yi la ma tudde muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ma tudde kooku aw ma fayam euh, di beral nuyoo nag Lamana lamaana Camara mhm. jóge itali boobu ba léegi war naa def deux mois mu ci dëkk bi mhm. xool lu ma neex lu ma bëgg ci loolu rek lay def. Mhm. ak sa soppe yi nekk Amérique ak soppe yi nekk bitim réew. xale yi voilà ñoom ñoom Aziz Banks ñoom ñëpp ndeysaan Aziz Ndiaye France xale yëpp bëgg ñoom Aziz. wallaahi Aziz sànq ba tey mu ngi réagir nuyu gu wér a wér a wér di nuyu alaaji Dudu Caam ñoom ay jàmbaar lañu dañu nekk bitim réew ba pare mhm. soppeeku wuñu ci ay xale tey la ñu gën a nekk ay jullit mhm. tey la ñu gën a nekk ay murit tey la ñu gën a bëgg Seydina Muhammad ñooy taxawu wallaahi kër sëñ Touba di def ay ndogu alaaji Maalik wallaahi wallaahi te mënoon nañu ne bitim réew la ñu nekk mënoon nañu ne ay xale la di nuyu bu baax nag sama sama xarit alaaji Babacar maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu euh, Cheikh mbake mi tamit sama sama rak la bo xamanteni ni nii ci man lool mhm. musuma ko téré dara ndax nit ko xamanteni da ngay yëkëti ay millions di ko jox mhm. te lu mu ci jëlé nga xam ko te musu ci lek ben dërëm bo togué war nga ko sant mhm. wa sama rak la ju ju ju ju ju ma te nek manam dal lu lu lu ode bi wax ci bay bu febar bi dañuy defani derbe tax waye ma ngi lay sant alaaji papan di sant di sant buuba buuba Ndour di ñaanal nak buuba ñaanal ko de tay ji lañuy dogu gisante mhm. waye ñing lay top di la seetaan bu baaxa baaxa baax mhm. Ousmane Nawel Dieng nee na jox la addu Cheikhou Tidiane mhm. ci salaatal fatiha yi ñaar fukk jooni neena bu yoron ay milliards yeneen yéene na pour jox la ko moom na bégal gi nga ko yalla yàlla ma sha allah dila ñaanal nak télé bi li nga ci bëgg rek nga am ko waaw mu melni jant bi jabar la de waaw lolu mom dina ko ñaan tay dina ko dina ko saso bu wéré wéré wéré a wér biraan duur alaaji Cheikh Diallo waaw loo mën ren bu déwénee da nga mën Ibrahima Cissé lolu mom dogal na lako yeen ñi fi nek nak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 اللهم يا اكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبح الناس للحق بالحق امين امين والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع امين وترفعنا بها الى اعلى الدرجات وتبلغنا باحسن حيات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات ولتف بنا وحبنا وكن لنا وهب لنا خزن ختام ربنا وصلي على النبي وسلم وقضي به حاجة كل مسلم امين يا رب العالمين امين jërëjëf Samb kontaan nañu farih na gaaya amadala umrak alhamdulilah kontaan nañu wa hafizaka kontaan nañu jërëjëf macha allah jërëjëf Samb jërëjëf kontaan nañu man damay ñëw ba foofu barkeelu am na yoo xam ne da nga ciy profité rek waaw <laughs> kontaan nañu macha allah kontaan nañu jërëjëf Samb amiin alaaj Pape amiin amiin amin amin mu ngoog eh, lii ay eh, lu mu ñu indil ay photo waaw alhamdulilah très rapidement ah d'accord Malick Mbodj Malick yow yaa defar maaleykum salaam ah ñu ngi ziar lii moom rafet na di ah oustaz Pape Anne ah. photo bi pour oustaz Pape Anne la ah waaye xaj ma jërëjëf. oustaz lii rafet na di. Ah? ah ah tabarakallah. ah oustaz ba pare lii màkk la. sama photo bi Medi euh, photo bii fan la woon oustaz fii Médine la. waaw bii yaa ngi ci wattu jumaay rasulullah waa maa ngi medin bii bi nga jullee ba génn noonu. Médine la téye kurus ga. ca Madinatul Munawwara. Médine Médine la. Alaaji Bangoog. ah. kon xaj ma nu ngi lay ñaanal gudd fan. jërëjëf nu ngi lay ñaanal wér. ndax lii nga nu bettee téléspectateurs yi bëgg nañu ci. jërëjëf sunu kilifa yi kontaan nañu. Mm. ñëpp bëgg nañu. jërëjëf boo indiloon alaaj Pape rek doy na sëkk. wallaahi ndax kii mooy sunu lépp. jërëjëf nii nga ko gisee nii ak fii mu taxaw. lu weex lii mu sol noon la xol bi weex. jërëjëf yàlla sàmmal nu ko yàlla aaral nu ko. yàlla guddal fanam. ci darajee rasulullah kon lii nga def bëgg nañ ci lool. rawatina bii nga ma defal man tamit. waaw ah, rafet na lool. <laughs> dama xamul nag fu ma ko yóbbu ndax xam nga boo yoree deux war nga ko def deux nag. <laughs> alaaji Pape ah. alaaji Pape. waaw ah. ah ma def ko sama côté la maa ngi maa ngi nuyu nag Ndoye Bane. waaw Ndoye Bane waaw Ndoye tey rek mu ngi may woo bi mu yëgee ni yaay nekk invité bi. maa ngi koy nuyu bu baax jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ok kontaan nañu. joxel ma ko fële ci ginnaaw ñoom Mohamed Djibi Thioy. waaw euh, sëñ Mohamed. Euh, ma bëggoon dama ko bëggoon présenter.